Pour ma mère,

Talla Sylla gi di ñëw ànd ak ki nga xam mooy doomu Ndeye Ousmane Diop jóg leen taxaw ca kaw jóg leen jóg leen taxaw ndeysaan wax ak gerte gi nii waa kër Pisco ngi nii doomu Ndeye Ablaye Diop ku wax jóg leen taxaw jóg leen taxaw di sargal président président ngi nii dugg ci yéen jóg leen taxaw jóg leen taxaw ca kaw ay eh, Baye Fall yi ala Baye Fall yi Baye Fall bee 2017 su ma juumul le 23 décembre waaye nag moom yàlla may ko loo xamante ni gëm naa ne ñu ko may barewul mooy lan bi mu yëkkatee kàddoom rek ne gis na ne amoon na yéene bokk ci mbër yi nga xamante ni ñooy xëccoo réew mi atum 2019 waaye bi mu ko càmbaree xalaat ko baax a baax mu gis ne ki xam mooy président Macky Sall tàmbale na liggéey boo xamante ni waruñ koo xajamal waroon nañ ko mayaat juróomi at ngir mu àggale liggéey yi mu tàmbali woon yeneen yu xam yu bees yi tam ko ba Sénégal mën a jëm ci kanam bi mu ko yëkkatee rek ñun ñëpp ñu ànd ne ko taala loo wax ñu ne waaw loolu kon moo andi liñ naan kon ñuy wax sénégalais yëpp ñu wax àdduna bi yëpp bu taala ne waaw ñu ne waaw bu ne déet ñu ne déet loolu andi atam te yàlla dogal na installé nañ ko ci àdduna bi yëpp bi nga xamante loolu am na li mission bi ñu njëkk a sant mooy ginnaaw bu wax ak Sénégal yi ba pare daal nañu danañ def benn tournée internationale boo xamante ni fépp foo xamante ni nitu président Talla Sylla nekk ko fa ci àdduna bi fekk nañ ko fa waxtaan ak moom leeral ko liggéey bi nga xamante ne ci lañ nekk muy fas yàlla ak président fal ko incha allah 2019. deuxième bi ba amaat ndam yàlla itam may na ci ndam lu yaatu yaatu ndax président Talla Sylla bi mu ñëkkatee loolu diwaan bi ñëkk a dem mooy diwaanu Amérique yàlla dogal na dem nañ fa ñaar fukki dëkk yoo xamante ni. ay ci président carnet souverain ñu waxtaan ak ñoom ñoom ñëpp ànd si ah ni naan mi tey dañu booy laagee Sénégal na ngeen waxtaan ne ko décision bu jëloon bàyyi nañ ko neexal moom lañ fas yéene 2019 ñu fas yéene ànd ak président Talla kon Amérique nee na waaw biñ jógee Amérique ñu dem réewum Italie war nañ ko fukki dëkk ak ñeent yoo xamante ni ay nit président Talla Sylla ñoo fa nekk bañ fa àggee itam structure ku ci ne dañu ñoom waxtaan ak ñoom bi ñu noppee ñu ne ñu bu ngeen demee Sénégal da ngeen wax président Talla Sylla décision bi ñu jël di ànd ak président Macky Sall waa Italie nee nañu waaw dañoo fas yéene suñu président Macky Sall à élection 2019 kon président Italie nee na waaw. biñ jógee Italie itam dem nañ Espagne war nañ fa fukki dëkk ak ñaar yoo xamante ña fa nekk ñëpp Talla Sylla la ñu wuyoo bañ waxtaanee ak ñoom. déggoo ak ñoom jël nañ décision élection 2019 ñu ànd ak président Talla Sylla ànd ak président ngir mu faluwaat kon président Espagne bi na waaw. bañ fa jugee itam dem nañ Belgique dem nañ fa ci ñaari dëkk waxtaan ak ñoom président waa Belgique nee nañu waaw bañ fa jugee itam dem nañ Hollande Amsterdam ñi nga xam ñoo fa nekk. waxtaan nañ ak ñoom déggoon nañu ak ñoom président waa Hollande nee waaw. danañ ànd ak yow fal président Macky Sall 2019 bu soobee yàlla. bañ fa jógee itam dem nañ diwaanu France la ca ëpp man ak moom ak Seydina Ousmane ak monsieur Diop mi ñun ñoo ko dox te yaakaar naa France itam nee na waaw biñ fa jógee ñoo nekk Sénégal. fii nga xamante nag fi lañ mu dalal suñu xel bu baax a baax fan lañ tàmbalee ci Sénégal mooy Madina Fall fan mooy Madina Fall mooy kër Cheikh Ibrahima Fall Babou Mouridine Cheikh Ibrahim, li mu liggéeyal Serigne Touba kon bu ci tàmbalee suñ xel dana dal danañ ko wéyal ci Sénégal bi yëpp te gëm naa ne ñëpp danañ wax waaw kon président dina wax ne atam Sénégal ak tàmbale atam Thiès atam Mbacké atam Matam atam Dakar atam Tamba atam Kédougou mboolem département ci Sénégal danañ ko taxawal te gëm naa ne ñëpp danañ ko wax kon président jërëjëf jërëjëf salaam Monsieur le maire de la ville de Thiès, Monsieur Talessila. Nous di ko nuyu nuyu bu màgg a ndax xam nañ responsables politiques ou ci Thiès di nuyu mbooleem fi di responsable politique wala chef religieux Nous di nuyu suñu ñu ngi leen di sargal bu baax a baax a baax dinaa taxaw tuuti ci monsieur le maire de la ville de Thiès parce que icône la ci dëkk bi bokk na ci ñi comprendre tey fi nga xam ni Thiès fara war a jëm mu jóg taxaw laxasaayuwaat bu baax ngir teg Thiès ci yoon woo xam ni yoonu mucc ayib lay doon kon loolu bu amee rafet na fu ñu ko fekk ñu jox ko cëru bi nga xam ne nii moom la am mais leeral askan wi liggéey bu am solo bi muy def gis nañ taxawaay bi ànd nañ ci ak yow gis nañ jàppale gi ngay jàppale son excellence le président Macky Sall na la leer ni ñu ngi ci sa ginnaaw foo nekk rek boo gestoo di ñu gis tey nag fi ñu dajee dafa nek zone bo xamni zone bu am solo la ci Thiès muy fi ci zone nord rawati nek ci digënté taaxi kaw Medina Fall keur Cheikh ak keuri kaw ñu nekkandoo fi ak suñu rak suñu xarit Ousmane Diop ñu xam ko bu yagg ci monsieur le maire Talla kon tay Ousmane bo ñëwé wote ngir lan ngir yok doole ànd ak président Macky Sall le maire de la ville Talla Sylla bu ñu ko yëgee lu ñu jàpp dañ koy bàyyi ñëw teew ndax ñoo ko bokk lii rek mooy politique ñoo bokk réew mi ñoo ko mën a defar ginnaaw bi ñu yàlla mayee ñu am taxawaay bi dañu war a gestu askan wi ndax fu leen soxlaa ñu ngi ci suñu wet lii firndeel na Ousmane ñu lay yëgal ni mbir mi ñoo ko bokk te duñu la seetaan te engagé wu nañ ni ñu ci nekk woon démb ak bërki démb dinañ ci ànd ak yow ba nga xamee ni incha allahu rabbi bu ñu demee ci élection yi ci ngoon ci waxtu wi yaag ñi nga àndal dinañ mën a assurer victoire APR ak coalition benn Bokk Yaakaar bi yépp

na la leer ni fii ci zone nord ñun duñu des ginnaaw liggéey biñ ci war a liggéey ginnaaw bu ci parrainage bi dinañ ko doxal ba mu mat ndax fi ñu toll ñu ngi ci bi ñu ngi am solo bu waxtu wa ñu war ci rendre compte autorités du parti ak waa coalition mouvement de soutien bi dinañ ko def nañ suñu frère Ousmane Diop ci suñu wet ndax lu bokk rek mo wara and Ousmane ñu ngi lay sant di la gëreum bert nga ma nak ndax dama jàppoon ni damay ñëw rek jël place ndax mbir mi mom fuñ ci fété rek bax nak ndax ñu ngi ci biir duñu guddal ndax guddina te autorité bi nga xamni mo jité jiite euh, ville bi mu ngi fi toog warul ñu ko bayyi mu guddé war nañ ko jox mu waxtaan ak yi kon dama leen di sant di leen gëreum di leen wax ni ñu ngi ci liggéey bi nañ leen ci àndandoo doon benn ndax li ñu dëgmal ànd doon benn rek moo koy tax a jot jërëjëf ñu asalaamaaleykum askanu Thiès noor tey jii atam 2019 moo nu dajale fii mooy ànd ak taala ak mati ngir askan gi am ndam 2019 mangi nuyu kep ku fi tew ma ak yow loxo ak suni bët ñent jappal ni mangi lay sant di la gërëm tay ji nak man mi di wax ak yeen xam ngeen ni amna nday amna bay maleni laaj man luma tuddu mani lu ma tudd loolu identité bila la bu dul deñ waaye dama bëgg ngeen seede ma teg ci leneen lu dul deñ muy Ousmane Diop taalibe Serigne Touba ma bëgg ngeen tegaat ci leneen lu dul deñ Ousmane Diop taalibe maam Cheikh Ibrahima Fall Mepege Usman Job ngeen teg ci sëtu Serigne Modou Kane Mandar Touba Kane mandarga bi nag moo di Ousmane Diop Ousmane Diop mu taale sill ta du Ousmane kon Ousmane Diop mom, budé dafa tak ci Talla Sylla Talla am xaritam mu taxaw ci Sénégal gep di njitu rew mi di président Macky Sall wax ni sama xarit wax ko ñaar yoon publiquement kon ma ngi leen wax ni yow Talla Sylla ku la ma xarito ko ku la ma nono ko kon président de la république Macky Sall am xarit bu tuddu Ousmane Diop. ci Thiès Nord man dama dëkk fii ci Thiès jànge fi màgge fi am lu ma bëggal Thiès ma nekkoon bitim réew yàlla def ma yàgg fa lool nekkoon fa étudiant dalal fa ay doomu sénégalais jiite fa étudiant ya ma jóge ca yor entreprise dalal fa ay doomu sénégalais ak émigré yi di liggéeyloo fa ay doomu aadama su ma demee ba jàpp ni sumay gis fichier électoral c'est des sénégalais de l'extérieur élection bu jot koy koy dama y a gëm ni affaire bi Sénégal la kon ma xam fa lu bari te lu ma fa yàlla wërsëgle woon nga xamante ni nii dama ko doon liggéey muy sama ñàkk dama ko daan indi fii di ko indi saa yu ma tukkee waxoon naa fi jigéen ñi nga xam ni dama leen doon jàppale nee naa leen sërite laa leen indil sërite dina duun sërite dina rëy dina tuut waaye sërite ki nga koy jox mooy ki nga sekkal ki nga amal kóllëre ki nga xam dara du ci deñ su ma leen koy doon jox ngir politique kon 2007 ba léegi kon ni ko kii waxee ay juróomi nit a ma toppoon tey laa ko gën a mën a joxe te loolu ma leen di jox nag sama ñàkk la woon moom laa leen di jox ma leen a xamal ni loolu ma doon def am na ñu nekk fii ci senegal yor ay ndomba tànk ci gouvernement bi ci askanu senegal seen lépp du dox te defuñu lu toll noonu ma de leen xamal ni bis bu ma yooree ndombay tànk yooyu ñoo ni yor. fii ci Sénégal maa ngi xamal président de la République Macky Sall ni fii laa ko jëme si ci Thiès may wax loolu moo tax ñu ni bokk nanu danoo bokk kenn boolewuñu Thiès danoo tàmm di wax naan gouvernement defu fi dara président nangam bu Ablaye wadd wala président Macky Sall wala diw diw defu fi dara damañ ñu leen mbir mi changé nanu loo bokk dangay ngay ànd ak ñoom nga nekk ko tey jii maire ville bi ak ñoom Ousmane Diop ak ñoom Serigne Saliou Bousso a ñeneen ak ñeneen dem nañ bokk ci majorité présidentielle yi dem fas yéene jël ay poste de responsabilité ñëw defar fii ci Thiès danoo bokk ngir cees gi dem ca kanam danoo bokk ngir askan wi yokk ba yëg ko danoo bokk ngir yéen waa Medina Fall li ngeen ma wax ci wàllu ndox mi nga xamante ni am na fu muy manqué ak li ngeen ma xamal ni xamal ngeen ma ni am na foo xam ni problème mu éclairage bi jé jotewu fa danoo bo ngir loolu saafarawu yéen waa taaxi kaw li ngeen wax ci marché ngelaw da na a bëgg ku ko defar ba mu jaral na ñun ñu jëkkati suñu juróomi million jox ko kenn ku ñu defal étude yi danoo bokk ngir président de la république Macky sàll financé ma ko ñu daal di def marché ngelaw mu doon xéewal danoo bokk dano bok ngir ke kilifa diine yi nek fi ku xam Thiès xam ni lepp ci diine la te bu gam jotee Sénégal gep dañuy fàq ñew Thiès dano bok ngir ñoy sen gam ñuy tudd Muhammad Rasoulaay neexe fi ci Thiès ñu am luñu nu dano bok dano bok ngir li nga xamanteni promo ville bi duguna bir biir Thiès nga xamne ne bokk na ci quartier nga xamne ne bokk na ci ñu bokk na pour lepp gëna yaatu lepp gaaw dano bok ngir ñi nga xamanteni ni danoo wax problème assainissement yi ci quartier yi ñu daal ci jaar danoo bokk ngir lan tey jii ci tol nañ foo xamanteni ni candidat yi bari na te président Macky Sall nee na ngeen parraineel ko danoo bokk ngir parraineel président Macky Sall lan moo tax ñu parraineel ba président Macky Sall ndaxte dafa am juróomi at yoo xam ni moom la ñuy laajaat réew mi te juróomi at yooyu dañoo tollu ci juróomi at yoo xamante nii Sénégal mën na noo wax ni politique du fi amati liggéey rek la léegi bu nu bokkee dañuy ànd ak ñoom defar sunu Cees bu nu bokkul nag yaakaar naa ni dañuy dem wuti li nga bokk nag yaay mën a defal sa bopp loolu na ko waa Cees bàyyi xel na ko waa Cees noor bàyyi xel ma leen xamal ni fi ñu toll nii dama bëgg ñëpp jël fii su président Macky sàll pare na ko. di ko signé ba fii si saf fii si président Macky saf sàpp ak Macky nanu ko signé ba mu saf sàpp kon fi ni toll nii damaa bëgg ngeen xam ni yéen jigéen ñi yéen jigéen ñi maa ngi leen di jox ay financement maa ngi leen di jàppale tey damaa fas yéene wuti yenn xéewal booleeg yi ma yor jox leen ko comme nag yéen da président Macky Sall nee na ngeen ngeen pare na ko damay wax ni yéen dinaa leen wutal nday dikke dinaa leen wutal nday dikke président Talla ñii dama bëgg soxna Marème Faye Sall nekk seen nday dikke comme góoram mi ngi ñëw laaj ngeen pare na ko waaye yéen suñuy jigéen nanu laaj nday dikke kon président Macky Sall fii moom zone nord dina la parrainer waaye ñu ni zone nord li ñuy laaj ndey dikkee moom la ma jigéen ñi laaj kuy dem ndak kuy dem ndar fooy jaar kuy dem ndar fooy jaar kon buy soxna Marème di dem ndar na jaar seet seet ay ndey dikkeem fii ci Thiès nord kon nag na xel dal danoo bëgg fii ci Thiès nord li ngeen doon jooy jeex na fi man dama bokk ngir cees noor dem ca kanam dama bokk pour lu ma am indi ko ci yéen cees dem jëm kanam kon dalal leen seen xel xam ni gor ngeen ko seqal gor ngeen ko seqal dama bëgg tamit ngeen ngeen ay gor yi ngeen doon ngeen wan président Macky Sall ñi leen ñun fii ci Thiès Nord leen fexe def lépp ba nga xamante ni nii ñoo la parrainé te ñoo lay gagné ci centre de vote yëpp. incha allah rabi jërë jëf maa leen sant di leen gërëm ma lay jóg gërëm naa ko moom teew na ak ñëpp maa ngi leen sant di leen gërëm jërë ngeen jëf. moo ñëw dama bëgg a am lu ma saraxu ci yéen. lii jëkk mooy bu ñuy jël kàddu ba bu ñuy daaneel. mu bañ am koy saraxu ci yéen ñaareel bi may saraxu ci yéen mooy ngeen may ma une minute de silence pour Bruno Diatta waaw ngeen taxaw ñu def une minute de silence. maa ngi lay nuyu. di nuyu bépp kilifa diine boo xam ne teew nga ci jataay bi walla nga yable fi di nuyu président Moussé Diop président Moussé Diop président Magom Ndiaye di nuyu Malay Diop ndeysaan mi nga xam ne ganu Ousmane Diop la waaye tey jii ganu fal askan wi la di nuyu suñu jigéen ñu baax ñi nga xam ne ñoo dëkk fii ci gox bi te dajaloo ngir ñëw dooleel usmaan di nuyu xale yi ak góor ñi nga xam ne ñoom ñoo taaral jataayu tey bi waaye nag di beral nuyoo kii nga xam ne mooy Ousmane Diop Ousmane ñi nga xam ne ñoo mel ni moom bu nu yaatu woon lool defe naan dana gën a baax ndax ku xam usmaan xam ko ci nekkuk Baay Faal ku xam Ousmane xam ko ci Pastef engagement bu mat sëkk ku ko xam xam ko ci ngëm ku ko ci xam xam ko ci tabe ku ko xam xam ko ci képp koo xamante ni xaritam la mu wane ci yow kóllëre bu mat sëkk moo waraloon bisub tey bii nga xam ne ay la yéwén maa ko ko tànnal nag ndax du def lu ma bi mu nee dafa bëgg bis boo xam ne moom day dajale ay am di jàmmam ak responsable kuréel yi mu taxawal ngir démarrer parrainage bi daf ma laaj bis man maa ko jox 22 septembre. bi ma ko joxee boobaak léegi noppaluwu ci mi ngi ci. kon tey suñu demee ba bis bi agsi daf doon jaaju ma woo les responsables yi nga xam ne ñoo ŋànk fal askan wi ñenn ñi nekk fii Thiès ñenn ñi nekk feneen ñu dajaloo. ca kër askan wi ngir waajal jataay bi ñoo ñu laa àndal ñëwandoog ñoom mooy ñi nga xam ne ñoo toog ci tribune bi muy ñoom Ahmed Mbaye di ñoom maire Mbuuba di yeneen responsable yi nga xam ne ku xooloon tey jii ci tribune bi di nga leen ràññee man nag ma taamu ak ñi ma tudd léegi ñu ñëw toogandoo ak askan wi ci suuf ngir ñu xam ne politique dafa dugg ci beneen jamono dugg ci beneen xeet boo xam ne ñi ñuy tànn def leen ay njiit dootuñu leen tànn ngir ñu doon patron askan wi dootuñu leen tànn ngir ñu doon ay buur dootuñu leen tànn ngir ñu moom nit ñi dañ leen di tànn ngir ñu nekk surga doomu aadama yi fas yéene di leen liggéey ci biir loolu ñi ma jiitu muy Ousmane di Serigne Saliou Bousso di papa Abdoulaye Wade

dafa am ñoo xam ne dañ ne ee eh, ñoom taala day falatunu askan wi Macky lañ bëgg a fal ca Mbàkke la tontu bi jibe sëñ Saliou Bousso ak ñamu àndal taxawal kuréel tudde ko 2019 fa atam fal askan wi atam di ànd ak taala ak Macky ngir fal askan wi li ñu gëm mooy euh, Macky Sall liggéeyam daf ci wéet ndax dama daa wax ak moom bu wa fekkee nag nit lu muy def soo d'accordul lag moom da nga ko koy wax taxaw ci kanamu ñëpp wax ko bu defee loo d'accord da ngay taxawaat ci kanamu ñëpp ne mag Sall li muy def d'accord naa ci ndax loolu aussi mooy yoon bu fekkee ne critiquer bu jotee dangay ngay critiquer wii bu jotee da nga naan wii te ki nga xam ne wiam am na sens mooy ki am sañ-sañ wax non

pendant des années jóge ci taxawal la jeunesse pour l'alternance pendant des années te ñépp ñi ko mas a jéem a ger kenn mosu ko ci réussir te jamono yooyu la gënoon nekk ndaw te jamono yooyu la gënoon ñàkk moyen te jamono yooyu la gënoon ñàkk kàttan kon du tey la ko kenn di man nit am na sañ-sañu ne d'accorduma ak taala ci choix bi mu def ndax loolooy démocratie dëgg la waaye kenn amul sañ-sañu jël baatu transhumance wala baatu guerre duñu ko féetal su fekkee ne nit ñi dans une société bo xamné démocratie lay wuyo amatul sañ-sañu choisir amatul sañ-sañu réfléchir amatul sañ-sañu opter nekkatuñu ci démocratie bu njëkk liñ daan dénoncer moy réew mo xamné ne nguur ga moo fay imposer pensée unique kenn du fa am benen xalaat mais suñu démé ba ay nit parce que dañoo nekk dans l'opposition dañ ne dañu bëgg a imposer que keneen du am xalaatu ne man d'accord naa ak président de la république fi mu bëgg a jëm bu boobaa on est dans le terrorisme te loolu normal na kenn ku ci nekk seet la dal xalam mu ne ba président Macky Sall di doog a falu bokk naa ci ñi nga xam ne wax nañ ko ne yoon wi nga jël du de mais Macky Sall kuy déglu la kon su fekkee ne toom nga ci kanamu ñëpp ñuy def dialogue national di ko ubbi en mai 2016 ma taxaw ci kanamam ne ko bi ma ñibbisee États-Unis dama def woy ne la yoon wii nga jël du dem mais jataay bii nga wooteel ngir wane ni Sénégal ñëpp ko bokk yoon wii mooy dem ndax Sénégal ñëpp ko bokk kon su ma ko waxee ne ko yoon wi mooy dem te mu nangoo déglu ñeneen di ko conseiller ñu dul man bu boobaa su ma àndul ak moom man aussi wàcc naa sama yoon. ma ni keroog sëñ Xaadim euh, Fall comme ci barabam lañ nekk dafa ni maa ngi Macky Sall ba ca Samba ba Samba di ca dem waaw maa ko ci jàppale ma ngir lan ngir suñu àndeek moom ëllëg askan wi moo tax dëgg la ngir xam nañu suñu àndeek moom li ñu yéene askan wi day gën a yomb ñu def ngir xam nañ ne Thiès biñ ñu dénk ni li mu soxla mooy ñu mën a am kàttan bu nu may ñu xeex inondation ci zone yi nga xam ne ba léegi des na fa hmm. am na liggéey buñ ci jot a def ba am na côté yu daan gën a inondé te tey ji bu ndox mi ñëwee du fa def lu mat waxtu ak genn wàll waaye am na yeneen zone yoo xam ne nit ñi dañoo tabax ci yoonu ndox mi te il est clair que tant que restructuré wuñu quartier yooyu wala ñu teg yeneen di pexe wala nit ñi ci boppam di fay ay impôt ki ba nit ñi mën na def fa loo xam ne dina ubbi mbir mi faaw ay jafe-jafe di am kon bu fekkee ne loolu bëgg nañ ko def te mu laaj moyens yu bëri te état bi aujourd'hui moo am capacité ak pexe dimbali doomu aadama yooyu man mi nga xam ne man maa ne maay surga waa Thiès man maay Baay Faal waa Thiès fu ma ko war a mën a daagaan dama ko fay daagaan te ki ma ci gën a jege mooy l'état du Sénégal donc may lëkkaloo ak ñoom. dëgg la macha allah. tey Promoville mi ngi dugal ci Thiès fukki tali ak ñeent yu yemul ci fukki tali ak ñeent dafay am assainissement am éclairage public lu ne laa ciy dégg nag ci tali yooyu ku ne bëri na quartier yu may dégg ay nit di wax ne moo ci dox li moo ci kenn doxut. président Macky Sall ak gouvernement bi man la ñu woo man la ñu bind ne ma jox nañ nanga nangami kilomètre linéaire boo fekk ne maa ngi tëdd hôpital foo ma tëdd laa jël sama téléphone ameen mbay ne toog moom laa woo tracé ko ne ko nañ def fii ak fii ak fii ak fii ndegam du mat nañu seet gox yi nga xamante ni bu buñ ko fa defee dina am lu mu jur bu ëllëgee deuxième phase suñu jotaatee yeneen kilomètre ñu ñu xotti ko demee keneen ku la wax leneen waxu la lu am. dëgg la man naa choisir tali mais lu tax ma def ko ndax xam naa Cees su ma mënee tëdd ci lalu hôpital di wax nañ def fii ak fii ak fii ak fii te ba ma ko waxee ba léegi dara teggeeku ci loola dëkk ci dëkk bi moo ko waral te xam ne ñu ko fa defee bu ëllëgee fii ak déwén ñañu koy def ci seen gox ya ak ñay dem foofu dinañu xam ne président Macky Sall am na lu mu fi def mënoon nañ ko toppee nii ndax zone nord bii ngeen nekk ma léegi fii la marché aux poissons fruits et légumes di ñëw fii ci booru jasal fii lu bëri dana fi agsi buñ ca yeggee ñu baatare xam nga nit ñi danoo tàmm bu ñu def ay manifestation di baatare mais baatare bi ñuy def baaxul nañu bàyyi ay baatale ay xaalis ndax Sénégal dafa bëri ñu néew doole dafa bëri ñoo xam ne seen lekk yombul seen naan yombul boo taxaw seen kanam bi baatale ay CFA dañ lay jéppi et c'est une forme d'arrogance et nous devons tourner le dos à ça loolu képp koo xam ne da bëgg jàppale Macky Sall bëgg ko dimbali bëggal ko jàmm doo jóg di taxaw ci kanamu ay nit yu amul ngay jël ay xaalis di baatare su ngeen bëggee baatare da ngeen di baatare ay fiche parrainage. dëgg la merci. léegi jataay bu ñu defati dañuy baatare mais dañuy baatare ay fiche parrainage <laughs> donc Ousmane da ngaa ubbi tey beneen yoon bu ñuy def jataay fii la ñuy xaar nga taxaw di baatare du dëgg ku la bëgg a dimbale ci baatare bi nag te bëgg sa baatare gudd te yàgg te am solo na commencé defal la liggéey bi tax nga woote jataayu tey. lan la ñuy battre mooy dañuy fexe ba suñu dajeete di battre ay projet di wax ne Promoville dugg na di wax PUDC dugg na di wax dëkk sàngam def nañ fa forage dëkk sàngam am na lii dëkk sàngam am na lamp ndax ñetti junniy lampadaire solaire gouvernement jox nañ ko Sénégal 50 000 lampadaires moom la projet bi dajal y a 552 communes au Sénégal

woyofal mbir bi ci bi mais nit ñi pour des problèmes de sécurité mais prévoir 325 lan pour 13 kilomètres yi mais loolu bu dul woon gouvernement bi du am kon ñun loolu la ñuy baatare suñuy dañuy wax quartier yi nga amuñu ndox ndox quartier réseau d'évacuation des eaux usées àggu fa woon ñu fexe mu àgg fa ñun suñuy baatere dañuy baatere ngir nit ñi nga xam ne seen doom amuñu liggéey ba man leen a toppatoo ñu fexe ñu baatere ba ñu am loo xamante ni dañ ci man jàpp ba dootuñu tàllal loxo benn politicien tey Ousmane yaa ngi jël ci sa ñax ak ci say pexe di jàppale ay nit mais meilleur jàppale bi mooy suñu fexee ba teg dëkk bi ci yoon bu ñu tegaatee Macky Sall d'autres le Quand il n'aura plus besoin de faire de la politique je suis convaincu qu'une fois élu il sera libéré nous connaissons ce pays nous savons qu'aucun président n'a jamais été élu Un président Réunion ñoo Vous bu pas seetloo Wade ko Abdou au premier tour Wade avait 35 en 2012 du dañoo ndax au premier tour Macky Sall avait 25 mais Macky a tiré les leçons il a compris que ku ci sa Kouti sa coalition Tassaro, sa daanu foofu lay jaar ndax bi Abdou Diouf dee daanu di ba ko ñun jëf jël ndax nous étions la jeunesse pour l'alternance avec un récépissé de parti politique c'est ça l'histoire Binti ci n'yas ñas gis ne jogé PS taxul la dé jogé PS la tekki mu jóg créé AFP ñun ñoo ko njëkk a jàppale ñaari fàq yooyu moo créé l' alternance en 2000 yàlla si ñun la ko jaarale c' est la vérité historique kenn mënu ko dindi bi ñu jógee bi nga xam ne dans le camp ñu bëri fàq nañu le premier ministre Idriss Seck fàq na euh, Macky Sall dem na ñeneen ak ñeneen dem nañu mais ci la Wade daanu mais <laughs> mais Macky Sall dafa jàngat loolu ba mu defee coalition boobu ba léegi. histoire du Sénégal depuis 1960 amagul coalition bu durer ni presque 7 ans loolaa waral même ça yu amul lu ko nakari daf koy jëlalee je l'ai compris dama ko daan méré ci lu bëri diko critiquer ci lu bëri te pourtant sama xarit la bi muy doog tok, man rek ma wax entre les deux tours personne ne m'a écouté te pourtant moy sama xarit mais biñ ko waré fal. dama ni nañ ko nañ ko chambar 3 3 jours ba 4 jours balaa ñuy engagé diko voter en 2012 nañ ko chambar man rek mako wax ba ma ko waxee ñi nek ci opposition te jamono boba te nekkon ay candidat ñëpp dañoo dal sama kaw ne ma amul dara lu ñu sét bu waat démé rek li ñu bëgg yépp dana am kon même personne yoy bañon ñu xalaat suñu bëggé ñew tay ne ma na na ma ci dem rek bu démé rek li ñam yépp yëpp dañ ko bëgg dinaa leen gëm man ñooñu nga xam amuñu vision en 2012 wala nga suñu nit ñu a am ay place gouvernement Macky Sall leen gënaloon ba ne pat suñu sama nañ ko fi 2012 dugg ci nguur contre les intérêts du Sénégal et des Sénégalais. c'est la raison pour laquelle nous ne noonu mu vision ni jamono boobu non la demé bañ ca génnee damaa bind président Macky Sall lettre bo xam dama ko siwol ku ko seet ding ko gis sama fee dama je vous invite à vous méfier des politiciens carriéristes et autres affairistes verts. ils sont prêts aujourd'hui à vous passer la bague au doigt en attendant l'accord corde au aujourd'hui ils veulent lui passer la corde au bout. donc bañ ne dañ koy passer bague au doigt gëmuñu ko aujourd'hui qu'ils veulent lui passer l'accord corde au

une pression positive dans le sens de la prise en charge des intérêts du peuple sénégalais man fama ma l'année. né. ne ci askan man ku andal, so comprendre le ne askan wi ma comprendre te man je suis sûr qu'il a compris parce que dañuy wax je n'ai pas le droit de laisser tomber le combat de toute une vie que le mérite de mener vaut autant que celui de l'emporter Tay, Sénégal dafa tollu ci diggante bu xat moy ñi ngi tuddu pétrole di tuddu gaz di tuddu yeneen ressource te réew mu mu massa am réew ya tak nañu réew mu massa am xeex am na fa ak yeneen ak yeneen nous ne devons pas seetaan ba bàyyi yu mel noonu di fi am fii réewu jàmm la fii réewu dal la kilifa yi comprendre nañ ko et je suis convaincu que sans que ñu dugg ci ay ndigal dinañu jël disposition yi war a jël pour préserver ce pays mais en même temps ñi nga xam ne am nañu lu ñu d'accordul

ndax dañuy tok ci suñu biir kër ndekki du yomb and du yomb reer du yomb te du tee suñu wayjur bu nu santee nu def loolu wér na ku nekk am na sa kër xam nga ni bari na lu fay dox loo xam ne neexu la mais sa kër lu ciow li bari bari bari bu nit jógee feneen bëgg ñëw xamb nga xamal ko ne ko bokkuloo ci dañu war a préserver jàmm ñun foofu lañ ne tey ji nag mooy jataay njëkk a jataay bi ñu njëkk a wootee Ousmane Diop mi moom lañ ko féetal ne ko nit ñi nga xam da nga leen daan jàppale leader yëpp dajale leen ñu xam ne kenn ku ci nekk nag dafa jot nga yëngu waaye ci biir loolu defuloo ko ngir xëccoo ak yeneen leader yiy jàppale Macky Sall mm-hmm. affaire bi du compétition ak ñoo xam ne ñoo bokk candidat tey waa kër sama frère Siré Dia nañ dem jël parrainage sama ñoom yaay ak samay rakk ñoom Abdou Mbaw nañ dem jël ci sama kër mbokk yi parrainage samay cousin ñeneen ñi fi nekk ñëpp ñoom Malay ñoom Ablaye Dieye ñoom day tikke mi nga xam ne maa ngi jóge ci ubbite permanence ak ñeneen ak ñeneen ñoom docteur Ndiaye ak ñëpp maa ngi ñaan sëy na bu njegeen ñoom ñëpp ku ci nekk foo xam ne fii kër Talla Sylla la wala kër mbokkam la demal jël seen parrainage. merci. ñun lu ñu bëgg mooy non seulement ñu matal te nañ ko def incha allah mais suñ ci jógee ñu teg kattan bu dalal nit ñi parce que je crois que kilifa yi ci dëkk bi bu ñu gisee ne ñëpp ànd nañu ak président bi fi nekk danañ wax ñëpp ñu dal. ndax kenn du taal dëkk bi bu boobaa ñu mën a dérouler bu boobaa ñu am suffisamment de temps pour préparer l'après-élection pour que ñi nga xam ne dañu war a joxante loxo ñu joxante loxo pas parce que demain diw dañ ko war a fal fii wala dañ ko war a tabb fële mais pour ñu def ko pour commencer réfléchir sur yi nga xam ne ñooy yitte askanu Thiès yitte askanu Sénégal ñu sàmm loolu ndaw ñi nga xam ne dañu inquié et qui sont nombreux ici comme à l'extérieur parce que fu leen dem nañ fa sëñ Saalum Moussa wax na leen ko ci loo xam ne bëriwul coow de sëñ Saliou Bousso mi depuis janvier. Mhm. mooy sama sëriñ ngeen baal ma ci baat bi maa ko yabal ci tur liñ bokk mu wër fi mu leen tuddal yëpp ànd ko ak suñu ñeneen ña fa ne te déggu leen ci benn coow tey ngeen ko dégg am na loo xam ne ñun ñoo ko defandoo ndax daje France ñu liggéeyandoo ko donc ci biir loolu gis nañ ci luñ neex.

du salle bi nag parce que salle bi dafa ndaw mais ci esplanade bi la d'autant plus que comme wax nañu né salle bi bëggatuñ fa def politique ñun dañuy respecter lo ñu ngi koy fas def le 13 donc Ousmane yow wa zone nord xam ngeen waaj ñu ngeen koy waajee le 13 octobre inshallah dañuy yendu ji Dakar luñ fay yendo parrainage barab site ya ñuy def di fa yendu pour def ay signature la vérifier ci ngone gi ñu battre. lu ñu mën a tegal ci loxo mii mi ñu baatare teg ko ci loxo ci diggante bi lépp loo xamante ni recensé nañ ko fi ci yitte ay nit ñu def ko ci ay fiche di baatare tamit teg ko ci loxo kafa toogal président Macky Sall ci wàllu woowu ne ko lii ay yitte askan wi la ngeen bàyyi ko xel ci programme bi ñu nar a def pour élection bii nu jëm leneen la ci des ñu waxtaan ak ñi nga xam ne ñoo yore plan Sénégal émergent laaj leen fiche yoo xamante ni buñ ñu ko joxee ak réalisation yi gouvernement bi def ñu mën a battre tamit teg ko ci loxo nit ñi le 13 incha allah suñu jógee ci le 13 euh, octobre dinaa leen jox date ba ca topp ak barab bañ koy defee bu soobee yàlla li ci des ñaanal leen jàmm ñaanal leen yiw ñaanal leen tawféex te di sàkku ci yéen ngeen naanal Ousmane mi ba lépp li nga xamante ni bëgg na ko mu man ko am ndax xam naa ko ndax nit la koo xamante ni ku ku ku yaru la te kuy dégg ndigal li ci des nag Cees yàlla na fi jàmm yàgg ndax ñun loolu moo nu war jërëjëf